da ngay vérifier ba xam ne ki lay jox wér-gu-wér bi jox nañ ko ko ndigal ci jëfandikoo gi ak joxe ko. xamante ne sëñ bi bu dikkoon ma mag ñi dina bindil aw aw kayit nga man day diwa ma jox diwa ma jox ci xam nga si sari mu baax man da daana wax baaxal comme dina ci joxaani waaye yéen day seenu yàlla la la gàtt na man sëñ bi man man sëñ bi lu ko waral taxaw na ci buntu réseau bi moom moom kon comme comme comme joxaat ci wedd wi bi yow maanaam sëñ bi ko jox wedd wi mu jox la ko waaye nag te man nag sew sew mooy dikk moom muy toog ci ci ci xalaat na fa gi waxoon ne kat moom di sëñ la min jóg moo ko moo ko jox wedd bi moom nga xamante ne seen moom sëriñ Saaliw wax kay waaw sëñ bi moom Lamine waaw Diop.
sëñ sëñ Mat Lamin Diop moo ko joxoon wérdu murit bi maxuus di di di Waaw, Maxuus, dóor du maanaam foofu foofu fii dóor du mari de waaw d'accord waaw waaw sëñ bu ma ma ma mag bi dane sun ba moo ko ko jox jaare ko cent bi mu mu digal jullit ñëpp moom ju- ju- jullit ñëpp la wax bu góor ak bu bu jigéen sun ba sun ba jox na ko ko mu mu mu leen ko jox waaye sa- sa- ndax si si sëñ Tuubaa ci digg digg moom xamul murit moom maanaam mu- murit moom se- se- Seex mu mu Moustapha fi indi rek maanaam moom moo fi indi maanaam la lay tay yi nga xam ne yi nga xam waaye sëñ Tuubaa li li mu mu xam mooy ab ju- mu'min muslim muhsin yaakaar naa su sa delloo ci ca ton bi ci amiru ndar ba bañ ko ba bañ ko ba ba ko ba ko maanaam góorgóorlu seen laajee ne ko ñi ñi ñi ñi topp ñu mu doon mu ne ko mooy ñi gëm yàlla dëggal ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo at tey suñu borom yi ñi ñi ñi ñi rafetal. bu ñu mën a nekk nag bu ñu mën a nekk ci adduna ñooñu ñooy murid ya waaye lii ñu xam noonu li li nga xam ne moom moom moom Cheikh Moussa ko def ni ci ngir bëgg liggéey sëñ bi man la yéwén loolu moom xalaatu maanaa nit la. nit a gis ne kat ku def noonu dana baax. waaw kon moom léegi wird bi kon moom faw bu kon maanaam maanaam da nga laaj xam nga tax kii ginnaaw ginnaaw ginnaaw da da ngaa jóg bëgg a bëgg a jël wird bi. faw faw bu kon da da da nga am yitte mën a wax ak ki la koy jox. bu bu dikkoon ca mag ñi nga xam ne mag ñi sëñ bi xam na ñoom sëñ bi leen tërbiyee woon loolu am kóolute gu jëkk ga àggoon na ci daanaka jërul laaj ndax ren da nga xam ne ñoom ñoom bu ñu ne la wéddu waaye sëñ bi la ko ko jox ndax ku ku ku ñëw ci kër sëñ bi ne la ne la wéddu waa ngi nii kooku moom dafa mooy jërul laaj waaye ginnaaw léegi léegi nag distance bi am na maanaam léegi te li li lay dox suñu diggante sëñ Tuubaa ci air bari na kon moom léegi laaj na laaj laaj ci ci ndax man digg naa ci ay sang soo xamante ne wa wax na ne joxe nañu wedd wi te ñoom ñoom si bopp ñoo ko wax jox nañu jox nañu ni am nañu ko leen laaj wedd wi ñu jox ko ba noppi te ñoom xam nañ ne ñoom seen bopp amuñu wedd wi maanaam maanaam maanaam ki kenn jox leen ko ah kon loolu sëñ Moussa mën nañoo jàpp ne kon maanaam erreur la itam ndax joxe joxe wérdu la kenn joxul nga xam ne amoo foo sukkandiku ngir joxe wérdu bi te nga joxe ko kon loolu itam mën na jur mën na jur dara de sero lañ ko mas sero la waaye nag waaye nag sëñ boobu boobu mën naa moom moom daa sant Mbàkke mbaa mu sant Jóob maanaam te xamul wedd wi maanaam problème ma ma ci xew bi am mooy noonu dañoo xamul dëgg dëgg yoon wi lu lu ci mu tëru maanaam yoon wi tëruwul ci ay jëbb loo ko su ko teraam waaye ay ci ay xaqaayiq ruuxaaniya loo xamante ne ci ruu lay moom connexion boobu foofu pour pour moom la jëm ginnaaw ci maanaam si maanaam si nga bu sax sëñ ma lay bu jëb moo ko jox
wérdu bi nga xam ne doomi sëñ Bàmba la waaye wëdd wi mënu koo am lu may dañ ko ko jox loolu bind bu am bi mu solo demee nag ba ba toog ci classe fagi nag ba am connexion nag fédéral léegi gi nag moom jox dañ ko joxaat ci beneen yoon loolu loolu loolu kon euh, kon moom faaw konoon dañ la la la ko jox xoolal askamara bi bi- maanaam léegi bi muy jox Sëñ Tuubaa bi du xaj di ko ko yeesal képp. Sëñ Tuubaa jox na ko junni dërëm mu mu ngóorlu. maanaam dërëm mu mu ngóor du du booba man maanaam ministre stade douze ñu wax ne ma maanaam léegi bi bëri ko maanaam gerte dërëm la. nga xamante ne kon bi nii bëri ko kon gerte wala la yooyu jox na ko maanaam kon moom maanaam du ne nag ok jox na ko ni ëppee ne ne la wér dubaa ngoog waaye day am connexion da ngay am is na is na xaas nga xamante ne yow soo koy jëfandikoo da ngay maanaam na xam dara mais sëñ sëñ Moussa su ma déggee say wax mooy Serigne Saliou li muy nekk nekk doo- doomu Seexul Xadiim moonte waaw.
wirde wi laataa moom mu dem a sañ-sañ ba di ko joxe bi mu nekkee xalifa waaw.
lay doog a am connexion comme ni nga ko waxee pour man koo joxe waaw.
waaye bi mu nekkee doomu Serigne Touba simple te nekkagut xalifa général sëñ Mat Lamine Diop mi nga xam ne moo ko gënoon a jege Serigne Touba comme waaw.
Serigne Saliou sax Serigne Touba ko jur waaye Cheikh Mouhamadou Lamine Diop moo ko gënoon a jege Serigne Touba moom ca la dem waaw.
laaj ko wirde wi
wuyu bi nga xamante ne te ne moom di dikk muy doon xalifa ku mu ku muy jox wér wér de it ndigalul suñu Mat Lamin Diop ndigalul sëñ Bamba ci la la Ci la la koy jox.
la la ko jox waaw lu am solo la maanaam lu lu lu lu Lu dara leeral la, mhm.
wa- waaw am na solo daal ma waaw ci xamaa na nag ci xamaa na ci nag sëriñ si Mhm.
bu doon tey de ku mel ne sëñ Isaa gi moom dimbaleen nañ ko tey mu bind ci werd wi ñëw mool ko maanaam tuddee ko fiqul werd Mhm.
ci ko wirdul maxuus nga xamante ne léegi ab téere lay doon bu ndaw ci wolof ci français ci arab ñu móol ko ku soxla maanaam culture bi ku soxla ku dem ba bëgg a jël wird wi nooy def Mhm.
soo ko jëlee ba noppi noo koy doxalee yaakaar naa suñu isaa dana ci dikk ci alxuraan ji nafile yeeg buñ ko defee ak soo ko fàtte incha allah da damay bañ a dugg ci détails yooyu laaj bi ma lay laaj ñi kay ñu bàyyi continuer waat waxtaan wi ñëwaat ci yow ci kanam waaw moom mooy moom moom mooy kon man mën nañoo jàpp ne wird wi maanaam Serigne Touba ci boppam man dama seetlu ne yenn conférencier yu bari wala yenn Waaw.
waxtaan yu bari yi nga xam ci yoonu murid du ñemee tudd Waaw.
wird wi kon wird wi Waaw.
moom dafa am maanaam nit ñi ñoo ko gëstuwut wala dafa compliqué ba maanaam kenn ñemewu koo waxtaane déedéet compliqué wul dara xam nga xam nga sëñ sëñ bi maanaam man mii di di wax ak yow ba ma xàmmee ba tey ñun fukki at yaa ngi bëgg a tegal ba ma xàmmee ba ma xàmmee man laa fekk woon mag ñi njëriñam ma murid gi yitteel ma ma koy gëstu nag nga xamante ne ba gars yi yitteeloo football ba ak yitteewoo laa yor nag am bëri ba man ma yittewoo man sëñ Bamba bëgg a xam mooy lan.
Mhm.
waaw soo jàngee arab jàng fa loo mën di jàng te te te yitte woo yi fi gëstoo ko piir donc mën na xam. suñu waxtaankat yi yu bëri ñu nga naan sax wérdu wérdu bi am na wérdu liggéey kon maanaam tum na wax ji ci xamuñu ko daal. dë- dëgg yàlla su su su gisaa gi moom moom mu xam na ci dara. maanaam ba lu ñu war a di ci gëstu la.
Mhm.
waaye nag ci ci ci xam nga yi dañ dañ gëstu ci keel mu naf sa maanaam daa sax yee motif motivation amut ci noonu.
Mhm.
maanaam no- noonu sunu sang si ki ñu mën a déglu dëgg-dëgg mooy gaa yi wax ay yu neex Mhm.
maanaam ñi xam daal dañuy taxawal ta- taxawal rek Mhm.
waaye bu bu dee kuy waxtaan xam-xam dëgg moom maanaam so soxla la la wuñ la lo- loolu moo tax nag it maanaam sunu gaa yi di waxtaan ci xam-xam di ci yëmantu amuñu jotu gëstu ndax it koo xam ne yow dund nga soxla Mhm.
ku mel ne man maa ngi soxla lu soxla man lu ma lekk kooku man aw ma jot jotu jotu nag fi ñu toll nii di gëstu leen Mhm.
wala li ma xaw a ko kus néew yàlla dogal na ba may am jot ga maanaam maa ngi ci doon gëstu waaye nag yi nag sëriñ si bu bu bu bu bu yittewoo yëf yi Mhm.
no- noonu ñi nga xamante ne yàlla do- dogal na yittewoo nañ ko ba xam ci dara mën nañ cee bind téere mul ko ñëpp ba ba ba xam ko xanaa laaj bu mujj bii rek laataa ñuy taago mooy kon mën Waaw.
nañu wax ne kon léegi daal wirdu yoonu murit moom joxe ko fi mu toll nii daanaka wuurut daal maanaam nga jële ko ci nit pour jël ko wuurut daanaka déet xam nga li ñuy wax ci li ñuy wax ci falsafa vérification méthodique Mhm.
sëñ Tuubaa bi bi mu ñëwee fekk si mag ñi ñu yor seen yëf maanaam naa léegi wér wér yi mu ñu jëfandikoo day vérifié seet ba xam yow yow am nga ci isne am nga connexion am déet bu gëstoo ba xam ne amoo ko connexion dara ko ñukk dem seet te te keneen maanaam ci bëgg a xuus ci suñu borom sëñ Tuubaa ne woon na bu jàngee taw it fekk ci sawuf bu baax da koy ci ci ci kees lu ko bu joojee nga xam ne léegi yow bi nga xamee culture soufisme xam nga ne wérdekat moom faaw da ngay am isne xas da ngay am ndigal kooku am ndigal kooku am ndigal lé- léegi yow da ngay am yitte yi am fullay ku la koy jox nga nga maa toog ne ni ko xaj ji mu xool la nga xool ko ne ko suñ bi yow wérde wi foo ko jële da cee am ndigal mu ne waaw da- ndax ndigalul jëfe rek la mu ne waaw ne ko ndax am nga ci ndigalul joxe ko mu ne waaw ba mu leer Mhm.
maanaam ku mel ne man man maanaam sëñ Mourtala sëñ Abdou Khadre dama ko di di ko na jox kooku xam nga sëñ Khadre moom moom moom doo ko laaj naa ko foo foo ko jëlee.
ko jëlee.
Mhm.
ndax ndax moom su ko jëlee su la ko wutoon a jox du la ko ko jox.
Mhm.
maanaam sëñ Mourtala jox na ma ko maanaam si maanaam ki ma ko muy jox mooy maanaam si ci mooy si maanaam sëñ Saliou. nga xam ne ne sax moom sax ba ba ma ko joxee sax jox na ma ci ak leer leeral gu goo xamante ne leeral la goo xamante ne maanaam bees na mo- mooy ne kat nee na ma day waxtu yi bari na waaye nag Tisbaar moomu ak timis moomu loolu loolu moom expérience la. léegi daal moom tuuti naa yàlla daal li nu daal suñ bi nag ay ay oto yu baax oto yu baax dañoo gën a nag. yitteel ci xam sëñ bi.
danañ ci ñëwaat waaw.
insha allah ci kanam nañ la bàyyi rek nga nopp lu ñu ko ne waxtaan danañ ñëw leeral loolu waaw.
euh, wax dëgg.
ci ci ci ci ñaareelu bu ñuy ñëwaat ci yow insha allah sëriñ Moustapha jërëjëf waaw kooku mooy Serigne Moustapha Diop Kokki yaakaar naa leeral na lu jot a bëree bëri ci wirdi wi ndax nee na sëñ Mourtala bu Serigne Abdou Khadir moo ko njëkk a jox waaye ci mujjantal gi nag sëñ xaa mu mag sëñ Abdou Khadir moo ko njëkk a moo jox ko jox moo ko jox sëñ Mourtada joxaat ko ko sëñ Mourtala joxaat ko ko sëñ Saaliw Serigne Sall doo ko ko jox leeralal ko ci lu bëree bëri dinañ ci ñëwaat incha allah kon kooku moom